wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat Touba ca kanam ñëwaat tey di dugalaat loxoom ci ndox mi ci kiliftee fukk Serigne Abibou Mbacke moom Serigne Fallou mi nga xam ne mooy jëwriñu Touba ca kanam euh, ni ñu ko xamee ndox mi bari nay jafe-jafe fan yi ndax ci biir koor gi rek bi jàngoro ju doog dugg ci réew mi am na ay forage yu bari yu fi paanoon Touba ca kanam jógoon na jënd ay pompe remplacé woon ko mu nekkoon forage u Rahmatul Ahad forage u Saam forage u Lansar ak forage u Kër ba yooyu moom ñu ngi dox bi ñu changé yooyu ba noppi rek la ca daal di toppaat mooy dafa amaat yeneen yu paanaat yu war a tollaat ci ñett loolu moo sababoon manqué ndox mi metti ba fan fu nekk lañ ko doon waxee euh, depuis boobaak léegi nag Touba ca kanam mi ngi ci doon dox di ci dox ay jéego ngir jéem a xool nu nu muy def ba pompe yooyu pan ñu remplacer waat ko forage yooyu ñett lañ ñu ci wax umul xuraa la xayra ak ndaam lii xaw xawoon a sabab ñu xawoon ce yeex tuuti mooy laajoon na ay waxtaan suñu digganteeg ñi nga xam ne ñoo yor ndox mi ndax ni ñu xamee Touba kanam laaj lu ñu man la def fu ñu xam ba noppi di ko saytu ci biir loolu nag mu mel ne biñ njëkkee changé pompe yu njëkk yi am na lu ñu waxtaanoon ak ñoom ñi yoroon ndox mi bi ginaaw bi ñu ko changé ba noppi ba waroon a jëndaat ci yii mu mel ne waxtaan woowu desoon na lu ñu waroon a àggale. Euh, loolu ci la ñu nekkoon diggante Maawu Rahmati xëy na ak OFOR ba ñu bind leen ay lettre ne leen Touba ca kanam bëgg na heure bu jàpp ndey tam mën a nekk ci moom bu ndox mi amee jafe-jafe mu dugal ci loxoom ndax ginnaaw Touba moom amut. alali murid yi la yor te murid yi ñooy dund jafe-jafe manqué ndox mi kon du ci mën a taxaw di seetlu bu jafe-jafe amee il faut mu dugal ci loxoom waaye nag bu ci dugal loxoom faaw da koy ànd ñi nga xam ne ñoom ñooy responsabilité bi ñoom lañ ko dénk maaw rahmati ñoom la ko sëriñ Mountakha dénk ñoom it ñu lëkkaloo ci ak effort bi nga xam ne moom mooy représenté état ñu bind leen nag ne leen dañoo bëgg ndox mi euh, pompe yi nga xam ne Touba ca kanam mi ngi ko ciy def di ci dugal loxoom liñ koy dimbalee moom Touba kanam mooy information yi bàyyi ko ci ndox mi yëpp ñu dik ko jox ndax loolu day tax ñu man di teel a waajal di xam situation bi fi mu toll di xam tamit gan wet lañ ciy war a intervenir mu nekk intervention boo xam ne bu tegu ci yoon lay doon. li ñu leen waxoon nag mooy pompe yi nga xam ne ñun moom la ñuy faral di jënd buñ ko jëndee jox leen ko buñ koy plongé nañ ko fekke bu yàlla dogaloon pompe yooyu dox ba am problème tamit buñ koy génnee waat nañ ko fekke buñ ko génnee tamit ba noppi buñ ñu ko mënee jox ñu dem vérifier ko wut ay technicien jox leen ko buñ ko mënee réparé ñu réparé ko teg ko fi comme secours. bu yàlla dogalee mënuñ ko réparer ñu bàyyi leen ko euh, yooyu lañ leen bindoon ne yeneen information yi ci am ci réseau beeg gestion beeg yooyu luñ ci mën a am danañu dimbali ndax day tax ànd bi ak collaboration bi gën a jàppandi bu yàlla dogalee ñu bindi leen loolu euh, lettre bi dem na ba ci directeur u bi nekk Dakar xool na ko jox nañu tontam tontu lim ñu jox mooy def ñoo delloowaat ci maaw rahmati ndax dafa gis ne maaw rahmati moom la sëriñ bi dénk ndox mi nun nag bi ñuy euh, bind lettre OFOR di bind maaw rahmati tamit xamuñu woon ne responsabilité totale bi ci maaw la nekk xëy na sax effort effort am na ci parti wante mënuñu woon a ñàkk bind effort parce ñoom la ñu maaw daan tudd de temps en temps ci wax ne ñoom ñooy yor pompe yi ñooy changé ñooy ñooy ñooy démonté yu mel noon te léeg sax bu ñuy jënd pompe yi marque yi a caractéristiques yi waa effort ñoo ñu koy jox loolu moo taxoon ñu bind leen ci mais mel na ne kon waxtaan wi dañ koy wéyal suñu digganteeg maaw raxmati te jàpp naa ne dinañ ci amuk déggoo ndax Serigne Mountakha bokk na ci kàddu yu mujj a wax Serigne Abibou mooy sëñ Moustapha Dieng mi jiite maaw ak waa maaw na Touba kanam jàppale leen ci ndox mi ci jéego yooyu la ñuy doxee waaye nag li ñuy sàkku ci ñoom rek ak lii tax muy gën a yomb mooy jàppalante googu information yëpp nañ koy am ndax Touba kanam moom amatul sañ-sañu di dugal loxoom fu mu dul leeral ak di ko saytu fu muy dugal loxoom da koy xam ndax laaj lu ñu mën def fu nga xam la ñu wax mbooloo mi ba mbooloo mi yëkkati seen alal jox Touba ca kanam kon forcément fu mu koy dugal dafa war a am information bàyyi ko yëpp nga xam ne bu ëllëgee bu taxawee di leeral mën a wax ne fii laa ko dugaloon nii la demee nee la demee loolu rek mooy li nga xam ne moo taxoon ñu doon bindante yooyu di waxtaan ci biir des na nag lépp lijjanteeguñ ko moom leer mais rafet nañ ci njort moo tax nag tey actuellement ñetti pompe ñetti forage yi nga xam ne ñoo paan fi nii andi nañ fi ñaari pompe ndax fournisseur bi ñu ko war a livré pompe yi dafa nekkul ne à tout moment day am stock ci réew mi benn la ci am bu disponible ci réew mi ñaari ci ci semaine dina agsi wante pour ñu baña toog di xaar yàggaayu ñaar yi di ñëw ci semaine bi moom daf ñuy abal beneen boo xam ne dañ koy plongé tàmbali cee doxal ba bu yee ñëwee bu yebee si ñu remplacé ko génnee boobu delloo ko kon actuellement jàpp nañ ne ñaari pompe disponible na fi benn bi xayra lañ koy def beneen bi xam lañ koy def bu ko defee foofu moom commencé décanté wu ci semaine bi di ñëw beneen pompe bi ñëw ñu ñu dugal ko loolu mooy li nga xam ne moom lañ bëggoon a leeral tey dafa mel ne bi forage yi taxaweeg léegi fenn fu nekk nit ñaa ñu fay euh, woo di di di di wax ne Touba ca kanam na taxaw ci ndox mi yemuñ ci loolu sax waaye ngir bañoon a taxaw rek di seetaan taxoon na ba tey waa hydraulique di waa OFOR abal nañu ñaari camion citerne camion citerne yooyu Touba ca kanam moo ciy def gasoil mooy waxtaan ak chauffeur yi di xool nu muy def ak ñoom ba bis bu set yi dem ci quartier yi manqué ndox yooyu di fa maye ndox liñ ci mayeegun bari na bari na lool euh, te ba léegi programme boobu mi ngi wéy ndax dañ ne woon ko teg comme solution bu xaw a mën a jàppandi laata forage yi dama di dépanné waaye yàlla na bu fekkee waa maaw rahmati ak ñi ñuy àndal wara a dugal pompe yi tàmbali nañ ko xëy na peut-être suba mën naa am fii ñaari fan ñett di quartier yooyu ñu wax moom ndox ma dana mën a saafaro waaye sant bu baax a baax waa maaw raxmati ci ndax ñoom la ñu dénk ndox mi te bu ñu demee ba gis ne tamit soxla nañ ci ku leen jàppale ba ci yoon bu mujj bi ñoo bind yët ko sëñ Abibu loolu tamit dafay delluwaat ci dëkk bi kuréel yi fi nekk di liggéeyal sëriñ bi jamono bu nekk li war ci seen diggante mooy di joxante loxo di jàppante ngir loolu mooy mooy li ñu war tax ndax loolu mooy tax moo tax a jóg kuréel yi ginnaaw ñoo bokk fu ñu jëm ñoo bokk yéene ñoo bokk pas-pas kon li war rek mooy jàppante loxo ngir bu ko defee li ñuy yéene gën a mën a jàppandi noo ngi sant di gërëm di jaajëfal ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah